seenu dund ñoom la war yahood yi seenub dund ñoom la war loolu bu dee wàllu dund moom kenn warulu ci sa morom dara ñetteel ba mooy képp ku ci xeex ak kenn ci ñii ñun ñii di fasanti kolëre gi ku jógee feneen ñëw di xeex ak ñoom ñëpp nga xeexal maanaam ku ci xeex ak kenn rek ñëpp nga xeexal na ñëpp jóg jàppale maanaam li mu jublu daal mooy jullit yi ku ñëw dal si seen kaw yahood yi dañu war a ñëw képp ku jógee fële ñëw ni képp ci kaw yahood yi yonent bi moo leen di aarale ba jullit dañu war dem ak aar leen loolu ci point yi la bokk mu ni leen ba tey laa biire laa biirante it laa bëgg ngeen doxale ko ci suñ diggante ak yéen te bàkkaar bañ a dox ci diggante bi laa biirante ak ak ak njëkk nii leen ba tey képp kuñ tooñet moom la ñuy jàppale ak wet gu kuréel bu mën a bokk nii leen ba tey ku ci bokk ci kuréel bi mbaam bokk ci kee dañuy xool kañ tooñ ñu jàppale ko loolu mooy lu waaye ñu bëgg ñu ko doxale suñu yéen li feeg jullit yaa ngi geer ak ñenn yit nañ ñëw ànd si ak jullit yi buñ leen war buñ leen wan ginnaaw mukk léegi jullit yi saa bu ñu amee jafe-jafe ak ñenn ñu ñuy xeexal léegi yahud yi nañ ñëw ànd si ak ñoom loolu ba tey ci tomb yi ñuy rëddante ci la bokk ci foofee fa la yonente bi ni madina gi nag dañ koo araamal ba tey mooy na doon baladun xaraamun muy kenn du fi tuur deret ngir kóllëre gii nga xam ne fas nañ ko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 ku leen far rek na nga xam dagg nga kóllëre gi doxoon suñu diggante ñoom bu leen kenn jàppale it dinu xeex ku ko def ba tey kóllëre gi doxoon suñu diggante yàq nga ko bu nit jógee fële ñëw dal ci kaw Madina ci wàllu xeex ñëppay takkatoo défense défendre ko ba tey loolu ci point yi ñu bind ci la bokk waaye nag bind mi nag li koy bind bind du dox diggante ab tooñkat ak ñu fayu tooñaa nga ja ku tooñ lam tooñ des na ko réglé ba mu tegu ci aw yoon kulere gi yonante bi def ak yahudi ak boole gemu boole diggante juliti ci la e, dunduk madina dale nak ni tek ba julli di mën dundu sen diine di taxawal sen farata ta duñ ci ragal ben fitna duñ ci den lor ña nga xamanteni ñoy yahudi yahud farik yit nek ci nañu daan dundé di def sen commerce di def sen wutum alal ci nañ ko daan defee ta duñ ci am ben titange duñ ci am ben lor kon ni la yonante bi alayhi sama fekke ay xeet yu bokkul yu wuute mu benn leen ba lépp doon benn ba lépp ne takk kon politique boobu la jëkk doxal ginnaaw bu mu jógee Màkka ñëw Madina mu des mushrikoon yi nga xam ni dañoo doon euh, dañoo des ñoom di bokkaale waaye ñooñu amuñu woon ay jafe-jafe seen diggante ak jullit yi ndax euh, ñu ci ëpp ci ñoom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 bi yonente bi dëkk di ñëw Madina dafa fekk giirug Aws ak Xasraj dajaloo ginnaaw buñ xeexee xare ba ñuy wax xare bu aas ñu dajaloo woon ne dañ koo bëgg def muy seen kilifa te mosuñu dajaloo ci genn kilifa jëkk ko bi mu demee nag bay bëgg a doon buur buurub Madina nga xam dajaloo nañ ba waxtaanee ko ba di ko bëgg fal la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay ñëw fi bi mu ñëwee nag ñu ni nag ginnaaw yàlla yónni na ab yonente ci noonu kon jëratul ñuy tànn ab dara bàyyi gañ ko fa bàyyi ñëw lu ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon kilifa gi léegi ci la euh, fabee ak ci la amee ak mbañal diggante ku yonent bi ngir jàpp na ni ku doon waaja amook ngóor la te yonent bi moo nangu ngóor gi ci loxo moom noonu rek la koy la koy gisee waaye nag euh, bi mu xamee ni situation yi jàppale wuñ ko euh, moo tax mu feeñal ni jëbbalu na ginnaaw Badar dafa feeñal ak dugg ci diini islam waaye nag lim koy feeñal feeñal nag